bindam jot na mandargal parcours journalisme Mamadou Aliou Diallo nekkoon ki ñu mënoon roy si wàllu éthique ak déontologie yokk si nag mbaaxam ak humilité am. Mamadou Aliou en tout cas région Kolda tey ñàkk na acteur bu am importance ndax moom dafa nekk koo xamante ne dafa xarañ. mën liggéeyam kenn mës koo dëgg ci ay ay ay problème benn jeune boo xam ne opposition la nekkoon donc en 2012 Diallo dafa bindoon benn papier ci moom publier ko ci Soleil te kooku tey euh, seede na ko génne na papier bi mu ne c'était un des rares journalistes à oser publier un papier de l'opposition dans le Soleil donc temps boobu ñooñu ay opposants la ñoo je crois loolu rek résumé na nit ki. mu mel ni kaddu bi benn la génn àdduna Mamadou Aliou Diallo ab perte l si média yi. rawatina nag si jeune génération bi. wal fajiri au soleil wala ci agence France Presse wala APS APA News ñoom ñëpp am kenn du wax ne Diallo def na lii wala mos na bind benn papier gars yi kii am am lu ñu ciy yokk non c'était un professionnel. Diallo ñi bëri war nañ jàng ci moom surtout modestie xam nga journaliste yu bëri bu ñuy publier ñaari article la ñu dégg leen benn yoon ci rajo wala ñu gis génn télé mel ni ñoom ñoom moom adduna bi. mais eh, fekkee du noonu ni ki tey Mamadou Aliou Diallo mi nga xam ne bokk na si ñu xalal yoon wi dëddu na ñu denc ko ci si cimetière yu si Gadapara mu nekkoon ab royukaay mu kenn mënul fàtte ci tarixa taskatu xibaar fii ci diwaanu Kolda.